mbokk internet Thiès Info ñu ngi leen ziar bu baax a baax ñu ngi fii nag ci jàmm gën gër ay dara ku ne xam na ne chaque année rek day amal gàmm gu mag ci Thiès gàmm gi nag ñu ngi fii ci préparation yi ndax suba incha allah la ñu fas yéenee gàmm li nga xam ne moo di gàmm kër Chérif Aïdara fii ci jàmm gën macha allah fu ñu romb rek ñu ngi yeew ay nag ay gëléem préparation yi nekk à merveille kenn ku ci nekk di profité ci wàllu bi nga féete di xumbal di def sa waar tey ji nag ñu ngi fi ci bâche bi bâche bi nga xam ne ñu ngi koy defee ci terrain jàmm gën ñu fas yéene yéene rek weccante tuuti ak xalaat ak ñi nga xamante ne ñooy faral di baas baas bi bëgg leen a laaj à chaque année bu ñuy baas baas bi lañ la ñuy yëg ba tax na à chaque fois bu ñu leen fi fekkee dañuy am contentement ak mbégte di baas baas bi nga xam ne pour préparer gàmmu Chérif Aïdara. ayca sëñ bi noo tudd. maa ngi tudd Souleymane. Souleymane nan Seck. ayca Souleymane ñu fekk la fii rek ngeen di préparation ci bâche beeg yooyu lan ngeen di yëg bu ngeen nekkee ci bâche yi. waaw bi ñu koy tàmbali suñu xool day sedd guyu ndax suñu suñu kilifa gu ñu fi indi muy soxna joor Fall joor soxna joor tam rek fii kees chaque année bi mooy troisième année bi ñuy ñëw fii di ko baas di ko décorer chaque année. heure bu ñu joor waaye ne kër Sërif jot na dañ si am mbégte am si kontante gu wér a wér ndax moom taalibe la si kër gi si kër gi la bokk ay waajuram yëpp ñëpp si biir kër gi lañ bokkoon ndax heure ba ñu ko waxee ñu mun fu ñu munti nekk dañuy bàyyi lañ doon def yëpp daa doon ñëw fii rejoindre ko jàpp si liggéey bi fas yéene ànd ak moom ba liggéey bi jeex tak te fu ñu toll nii bi jeexagul ñoo ngi dañuy fanaan tey moom dañoo bëgg a fanaan terminer bagage yëpp mu jeex benn yoon. kon affaire des na ni. waaw des na lu bëree bari ah. mais lu si bëri moom des na moom fu ñu toll nii ndax dañoo war a fanaan tey moom tey moom. décorer affaire yi lépp lépp tey indi siège yeeg lépp oto yaa ngi dem di jëli bagage yeeg siège yeeg yëpp di indi tey moom dañoo bëgg daal moom fii balaay huit heures si suba ñu libéré sëñ bi tante bi moom. waaw fas yéene ko am na solo macha allah. gàmmu Chérif nekk loo xam ne chaque année day daal di am yéen bu amee at mu nekk ban jàngat ngeen ci am ba tax na ngeen ci déwén sa ñëwaat ba ngeen gàmm. xam nga euh, jàngi heure bu jotee chaque année da def ay erreur si tante bi des fois ba defee ay erreur yi defoon naa erreur bi bëgguñu erreur bi amaat nañ gën a waat tante bi. loolu tax chaque année dañuy ñëw di indiwaat beneen système bu bees si base bi. bu njëkk ba dañ doon def vert blanc bi léegi nag sëñ bi comme ren dañ ne nañ def tout blanc dañ ko defal blanc lépp base bi yëpp blanc loo tax chaque année nag bu ñëwee nag buñ commencé buñ bëggee décorer dañuy dem laaj mu jox ñu ndigalam ñu door a tàmbali liggéey bi. waaw daal blanc la laaj. waaw ren moom sëñ bi nee na na lépp weex na ndax dëkk bi jàmm la laaj. jàmm rek mi ngi noonu jaajëfal nañ la bu baax a baax merci beaucoup. jërëjëf jërëjëf. waaw macha allah firi moom incha day jox ci gàmm gi parce que nit ñi dañ koy soxla seen gan yi ak seen biir kër yi macha allah wax dëgg yàlla maa ngi jaay si ma wërsëg te vraiment mi ngi dox moom. depuis kañ nga commencé jaay si ci gàmm. waaw ma daaw rek laa fi commencé ak ren ji waaw daaw moo woon jaay si fii nag wax dëgg mais daaw laa fi ñëw. mu neex lool am xéwal lool nag ren ma ñëwaat. nga ñam ko mu neex. ma ñam ko mu neex ma a naa dolli waat ah kenn du ñam dara mu neex te doo ko defaat. waaw loolu la. kon noo gisee gàmmu. macha allah macha allah di ñaanal Serif Abdou Aziz ay dara na yàlla yokk ay leeram wax dëgg yàlla yàlla taasuñ ci barkeem njabootam bi mu fi bàyyi yal na ci yàlla teg loxo yàlla yokk barke bi wax dëgg yàlla xéewal rek laa fi gis kër Abdou Aziz Aïdara njaay bi neex na xéewal gi bari na wax dëgg yàlla naari euh, tamit baax nañu wax dëgg yàlla vraiment fii moom waa jàmm gën tamit baax nañu ak sama sœur bi Ndeye Awa moo ma utal place fii pour ma ñëw jaay si wax dëgg yàlla moom. yàlla na njaay mi jar ak jàmm. yaa rabbi amiin. Alima merci beaucoup. amiin waaw amiin merci ba déwén ak jàmm. sëñ bi noo tudd. Xatara Xatara Fall. Xatara Fall kañ nga jógee euh, Nimzaat ñëw. Euh, dinañ jóg euh, Mauritanie fii barkaati démb. waaw. waaw chaque année da ngay faral. waaw chaque année dana maa ngi ñëw fii gàmmu Cheikh na Abdou Aziz Haydara waaw chaque année dana maa ngi ñëw fii ziyaara Ndiaye. waaw indi sama Ndiaye macha allah njaay mi mbaa mi ngi dox. macha allah njaay mi ngi dox chaque année mi ngi dox macha allah wallahi chaque année mi ngi dox waaw waaw waaw incha allah waaw incha allah. boo gisee Sénégal Sénégal neex na macha allah comme Mauritanie rek benn la benn la benn la Mauritanie ak Sénégal benn la benn la wallahi. mel fay cher na wala. cher mel fay yomb na kay. gàmmu cher na yëpp daa yomb yëpp yëpp daa yomb promotion la promotion promotion la wallahi. wala xatara faal xatara faal xatara faal waaw. xatara ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax looy wax ci gaaw ci ga ci Cherif Aidara. ah Cherif Aidara macha allah ah borom jamono rek borom jamono rek ma wallaahi wallaahi ah du ñu ñaan yàlla rek wallaahi wallaahi. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax. merci beaucoup yal na mël fay jar ak jàmm. <laughs> <laughs> yow ngay taalibe ñu lay laaj nan nga gisee gàmmu bi waaw sant yàlla rek di julli ci Seydina Mohamed di ñaan yàlla yàlla ñu ci yàlla may ñu koy fekke nga Cheikh Abdou Aziz dafa nekk nit koo xam ne dafa dem ba pare ñun xamuñu ko macha allah mu commencé woon nag ci biir kër gi ci benn seize ba tey lii am waaw dañ koy ñaanal yàlla yal na yàllam li yàggal leeram gàmmu gi nag macha allah mu bàyyi fi xalifaam bi nga xam ne mooy taawa mu Cheikh Naama Aidara bëgg nit ñi ñu ñëw ko yàlla moo ko tuddoon yonent bi waxoon ko ko maamam waxoon ko ko mi Cheikh Cheikh Sadbo Cheikh Talibuya mooy baayam moom ba muy juddu dafa indaale turam moom la ñu wax xaala abou abdulaziz antali mustaxfiran min kulli anzali kookoo cheikh abdul aziz tey jàmm gën lim jaad la ñuy wax ndax tey jàmm gën bu amee lii cheikh abdul aziz moo tax moo ñu xamal lim jaad moo ñu xamal lii moo ñu xamal gàmmu macha allah kon waa jàmm ngeen kontaan ngeen ci dëkk bi mu fi dëkk. macha allah kontaan nañu ba suñu kontaan kontaan ndax tey jii ku ne jàmm gën ne gàmm soo nee gàmm ne kër Chérif adresse kër Chérif boo demee dakaar foo mënti dem danga naan wàccal kër Chérif kon Cheikh Abdou Aziz ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla yokk leeram ñu ñaanal Cheikh Naama mii yàlla bàyyi ko fi ak njabootam gi yëpp ndax jàmm gën nim jaar yàkkamti nañ ko lool macha allah macha allah gàmm gi dara manqué fi kër yëpp macha allah dali baax na rafet na. nit ñaa ngi lekk nit ñaa ngi naan ku ne yaa ngi jël sa wërsëg. kon jaaraama occupé këru jàmm gën la ñuy ñu ngi ba Sampaate ndax seen président Sampaate la dëkk ñu ngi Sampaate ñu ngi Ersan ñu ngi Aiglon ñu ngi Muusante ñu ngi ba Mbour 3 ay dal ña nga fa. macha allah waa Kaolack waa Mauritanie waa Niodior waa Gambie waa Fatick. yaa ngi may dégg waa euh, Ndar waa Tiwaawat waa Touba waa Mbacke ba ki nga xam ne mooy sëñ maam moom meen na mi ngi fii ci kër Cheikh ndax boo geesoo sama gannaaw kër Cheikh Talibuya moo fa dëkk sa boo nga ersan Talibuya ngi fii Cheikh maan mi ngi fële maan ngi nii ci gannaaw merci beaucoup soxna si c'est ay ca ñu ngi fii ci waañu Serif yaay booy noo tudd maanaam ay euh, Aïssatou Diop laa tudd Cheikha Aïssatou Diop mama ñu ne yow yaay présidente nationalu gàmmu gi ñu lay ziyaaru baax a baax di la laajte noo gisee gàmm yal na yàlla nangu ziyaar gàmm gi daal taw féex xéewal yu yaatu rek lañ ci gise ak yokkute gu mat sëkk ndax kii waral gàmmu gi loo ci def rek gis na ko yal nañu yàlla yombal luñ ci def muy wér kàntan ak xel ni mu ko waxoon nee na ndax daayir kéem jamaam bi le taale mu nekk mën nga ci def ñett yi la soxla xel kàntan ak wërsëg lu ci waaye am rek na ko ci def amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw yàlla dogal na ñun ñëpp ay taalibe la ñu xanaa respect tax ñu naa yaay waaye ñun ñëpp ay respect ay taalibe ñu kër Cheikh na ku fi nekk rek taalibe nga yàlla nañu yàlla def ñuy dëgg-dëgg taalibe ci barke Seydina Muhammad fekk la nga toog ci waañu bi nga xam ne mooy waañu xalifa bi ci boppam ah, ñi nga jox ñuy ñuy gérer toogu bi ah, lan moo tax nga taamu leen ci li nga xamante ne moom la xalifa bi di lekk. parce que xale yi dañ leen tànn taamu leen ci parce que pour commencer taalibe lañu ñu bëgg lañuy liggéey te gisuñu ci seen bopp sakkanoon ñu seen yaram sakkaluñ seen doole liñ leen wax en tant que taalibe toggal leen ba mu rafet ba mu neex ba mu rafet di ko indi à l'heure loolu la ñuy def des années moo tax ñu taamu leen incha allah. macha allah ñu lay wax rek ban kàddu ngay lancé ci ci gàmmu gi ak lu li ngay li ngay digal taalibe yi ñu gën cee farlu rek. taalibe daal mooy li ma la wax rek ñun ñëpp taalibe lañu taalibe warul rëy taalibe warul gis boppam taalibe warul seet li muy def ci kër sëriñ bi di ko natt ak di ko mesurer wala di ko compter nañu doon dëgg-dëgg taalibe te bañ ci gis suñu bopp loolu moo ñuy jëriñ fii jariñ ñu fële ne bu doon cheikh na rek lépp mën na koo def lu ci waaye def rek dafa bëgg nga jariñ ci yàlla luñ ci def yàlla lay doon njëriñ fii ak fële ci barke Seydina Mohamed yomb na yàlla. jaajëf yaay booy ñu ngi lay jaajëf. Euh, ñu ngi lay dellu ziar man maa ngi tudd Antou Fall di président régional bu dakaar bu Jamaatuna Sirri Tarixatul Xaadiriya ay ayca ñu fekk la fii ci waañ bi yow yaa dirigé waañ. waaw man maa dirigé waañ bi waañu xalifa bi. tey ci préparation yi ngeen nekk lu ngeen di waajal nii reer. waaw fi mu nekk ni ñu ngi ci préparation yi nga xamante ni gàmmu gi suba la gis nga xale yi ñu ngi ci nii di togg reer yi. comme niñ ko defee ci añ yi defee ko ci ndékki bi macha allah ñu ngi ñu ngi waaj ay ay bernde yu bari daal waaw yu bari ay façon. waa ay façon ne li responsabilité bu mag a mag la ñu dénk la waañu xalifa bi nga war a mën a togg ba mu baax joxe ko à l'heure ba pare dressé ko ba mu am jom buñ la ko joxee lan ngay yëg contentement laa ci yëg ak euh, mbégte ak sant yàlla ndax euh, lu metti la waaye lu neex la parce que mbir lu mu metti metti boo ko dee def ak xol euh, dafay neex ci yow waaw dafay neex ci yow macha allah. nga war a nga war a accélérer xale yi ñu yàq le à l'heure présenté ko à l'heure mosoo cee am benn journée boo xam ne daal am nga ci tey lu la naqari. ah déedéet alhamdulilah rabbil alamin parce que ñi àbbiwuma ji leen àbbiwuma leen lu jiwuma leen maak ñoom ñoo ci am képp ndax ay taaliba lañu ni ma sukkee jébal ñoom noonu lañ sukkee jébal koo ci ne yëkkatil balaa nga yëkkati sa kàddu sax mu def la nga bëgg a def ndax gis nga bâché fee la ñuy fanaan loolu doon taalibe ko waral bàyyi say lal. bàyyi sa njaboot bàyyi sa lépp di fanaan ci mbedd mi di togg ko yegg doon taalibe ko waral kon ñoom ñun bu ñu leen bu leen santee dara sax bala ñu cee yeggale ñoom ñu def ko. waaw ñu leen a juum ci quantité bi ngeen di sóor ba tey ngeen ne ah tey de li ñu sóor tuuti na wala ëpp. déedéet xam nga lu ko lu ko waral waa ñu xalifa bi la te dafa ni na yi lekk ba suur nanu laan ba màndi nanu nekk dans de bonnes conditions bu kenn xiif bu kenn mar jullit yàlla bu dox ci àll ba ñëw na benn day doy waaw moo tax ñu duñ ko ci ndax euh, moom bu buñ dee jox daf ñuy jox li nga lu foo ko suñu njort moo tax euh, mosuñu tey tit tey buñ ko joxee noonu lañ ko ciy defee alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf. sëñ bi ah, maa ngi leen di fay maa ngi tudd Binta Sall ñu may wax euh, madame Sissokho. madame Sissokho ñu fekk la ci préparatif yi ah, lan ngay yëg boo nekkee ci waañ xanaa bég rek bég rek ci suñu sang bi Chérif Cheikh Naama euh, di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wérgu yaram lu mu mun ren bu ne yàlla na mun lu ko yokk ko am nañ kontaan trop euh, ci ñu jël waañ bi lu toll ne waañu Cheikh na Cheikh Sadbu waañu Cheikh Abdou di waañu Cheikh Naama teg ko suñu loxo te ñuy kontaan rek ci jox gan ñu lekk ba suur dalal leen. macha allah. ayca Binta ñu ngi lay jaajëfal bu baax. waañ bi euh, di leen wax ne jërë ngeen jëf vraiment euh, kenn amu seen fay ndax bu ñu xëyee yeew fajar na leen jug leen ñëppay jug xale mag ndaw góor ak jigéen ñëppay jug euh, ñu ngi leen di ñaanal jàmm yal na yàlla def jàmm yéen waa Thiès info tamit ñu ngi leen di ñaanal jàmm yàlla yokk seen xéewal guddal seen fan barkeel seen liggéey. bi jaay Seydina Mouhamed sallallahu alayhi nga may ñu yàpp gële. non incha allah bu leen ñëwee bu subaa moom lu ngeen bëgg tangine am na fi zirik am na fi banaava am na fi mbaxalu naar am na fi ceebu jën am na lépp a ngi fi incha allah lu ngeen bëgg rek yéenay bañ